askan wa yeewoo ca caaween jàpp ni ginaar du topp kuy taxani bàyyi fa kay bojj ngir intérêt bi nga xam ne ni ma ngi koy dàq ca lu na mel ñoom ñi nag nekkoon ci parti bi di PDS jamono ji nag ñu daal takk seen i kaakeeg i dëbës daal di wutali parti bi di APR jaare ko ci bunt bi di soxna maam say Mbàkke bi nga xam ne jàmbaar yi fàkk tëdd la ci biir parti bi nga xam ne moom moo di APR rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba. te ginaar bu toppee a topp si topp nañu la ci li ñu santaane looñ ci tere ñu bàyyi ko looñ ci jëf loo ñu jëf ko. ñun kat dañoo dañ noo nax nax ñu nax ñu ba taay ci ñun waa village la ñu nekk nañ ne ay village village lañ la ba lu neex lañu ñuy def ñu bëgg ñoo xam ne nag dañoo bëgg ñoo tegg ñu ci village bii ñu nekk ndax ñun sëñ Touba rek ñu ñor te moo ñu fi indi ñu bàyyi suñu génti maam yëpp ngir sëriñ Touba gis koo xam ne nii sëriñ Touba maamam muy yow ma bëgg laa laxa suba faaw maak te dootuma la bàyyi mukk caaween nag bokk ci gox yi gën a sori ci biir dëkk bu sell bi di Touba askan wa fa yeewoo jàpp ne ñoom ñi lee dañ leen a bàyyi ci ginnaaw ci lu jëm ci ay jumtukaay lu ci mel ne ndox euh, courant aw yoon ak ay machine wal ak ay bërëb bu fajukaay am lu ñu naqari lool nag ci fii ñu nekk gox bi ñu nekk ñun dañoo nëbb dañoo làqu yaa ko gisal sa bopp boo ko doon wër tey ay ruq yu doy waar nga fiy gis amuñu courant amuñu ndox amuñu machine sax bu ñu bëggee wal dañuy sonn suñu doom yi dañuy sonn fi ne nga fay baqale di ko yónni ñu bëggoon kuñ ci jàppale lool nag Mbacke balay sa jamono ji nag ñoom ñi nga xam ne dañoo rallié jóge ci parti bi di PDS te dugg ci parti APR ñi ngay ñaan soxna maam say nga xam ne nii moom moo tax ñu màngaani ci yooyu parti yi nga xam ne ca la ñu nekkoon moom sax na si daal ci indi ay saafara sukkandiku ci nguurug Sénégal ak ki nga xam ne moom moo di président de la République di Macky Sall ma bëggoon nga jàppale suñu xale yi bu baax a baax ñu am ci lu ñu jàpp ñu ci sa maam bi rek Mbacké Balass seen kàddu yooyu ak seen càkkutéef yooyu lee mel na ni tàbbaluñ ko ci noppub tëx ndax ginnaaw bi soxna maam say Mbàkke ma ngay fësal ne mbooleem seen jafe-jafe yooyu lee président de la république dina taxaw ngir saafara ko ngir ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo yeewu ca caaween mën a gis seen bopp ci yorinu réew mi di Sénégal lépp nag dégg naa ko muy courant bi ngeen jàmbat ak machine wal bi ak ñàkk liggéey ak financement yi loolu moom luy neex président la te bu ko président déggee lu yomb la ci moom ndax ne année mi année sociale la jigéen ñi ñoo ko moom te président ku bëgg ji doole jigéen ñi la ku bëgg jigéen ñi tamit am liggéey kon nag liggéey nag bu soobee yàlla dafay jàpp baax man ma duggee ci carte sama yaram dafa daw ndax man jàpp naa ne carte bi ni ni soriwul biir ni mu mel ci Touba amul courant amul ndox am naa lu metrop ginnaaw ñu jógee ci parti bi ngeen nekk ñëw ci parti pouvoir lépp luñ ci man incha des na ko def. ci tëjcal kàddoom moom ki nga xam ne mooy responsable politique bi di soxna maam say Mbàkke ma ngay fësal ni jamono ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi di kujjeeg politique gi taal gi ñu fas yéene taal réew mi ki nga xam ne di jëwriñ ji gàllu lépp lu jëm ci yorinu réew bi di Sénégal di Aly Ngouille Ndiaye nag du leen ci bàyyi benn yoon ndax jàpp na ni candidat yi nga xam a téye tere leen ñu daal bokk jongante njiitam réew mi ci ku nekk ca ñoom dangaa luubal koppar yoo xam ne nii fekk feeñaloo ko sax bokk ci yoolee des na ko seetaat. yooyu xam ne dañ leen a dàq yoon mu leen parce président dàqu leen ndax noo jël àll askan wi dugal ko foo xam ne nii euh, kenn xamul fu ko dugal bi leen di yoon dàqee ci élection yi ñoom ñu ne kon nag dañ yàq élection yi loolu may dénoncé ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci njàmbaram ci liggéeyam. mu taxaw ci bu baax ba élection yi jaar fi mu a jaar ndax euh, ku jël àll réew mi yoon moo lay topp ñu ne dañ cee sant ndax yoon moom bëggul kenn ko xam jël nga àll réew mi sa loxo tax nga ci élection loolu waral ñu génn élection yi ñu yi te loolu moom ñu ko wax ministre intérieur bu baax mu taxaw ci ba yi jaar yoon